waaw dañuy wàññi jiw wala ki nga xam ne nii moom nga jaay si gerte moo lay jox jiw da nga daan bay ba ci digg bi sax ki nga war a jaay nga dem mu jox la xaalis période de soudure waaw période de soudure nga dem dox c'est-à-dire soo wàccee sa yoon rek da ngay wàcc sa yoon moo tax delluwaat ci yoon wi rek moo gën delluwaat ci yoon bi mooy jëlaat mbir mi waat ko secteur bi xam nga chambre de commerce bu ñu koy waxee commerce du métier commerce service la dafa am importance yàlla sax baatu commerce lay utiliser ci nit ñi waaw hmm. yàlla hmm. li muy def ak nit ñi hmm. utiliser benn baat bu dul commerce istaro bi ahdillahi ay ma anan xalilan ak eh, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alimin soo déggee sax ba ci mag ñi dañ naan jaayante naa ak yow ci sama di àdduna ak alaaxira ah, ndax weccoo la voilà mooy mooy li gën a wóor ci protocole bu nit mën a am ak nit sama pap daana wax na mbokk neex na lool waaye bokk affaire dàq bokk mm-hmm. affaire mooy bokk commerce weccante mm-hmm. xam nga commerce bi su ne chambre de commerce bi commerce bi mooy lépp ndax baykat bi mm-hmm. ci commerce bi lay mujj déedéet lan lay njëkke day dem jëndi jiwu jëndi machine am bay jaay c'est au début c'est lu mu mën a doon boo réglee commercialisation bi rek mu dem. Mhm. média bi ngeen nekk sax. lu ko tee dox loolu rek la. Mhm. kuy def média. Mhm. am xaalis boo jëndee matériel bu baax. boo produire sa production. nga mën a am ay publicité wala nga am ay sponsor amul leneen état sax commerce lay def. parce que kon ñëppay commerce ñëppay commerce léegi nag commerce bu am doolee bu yem ci réew mi waxuma commerce bu ñu jël jëmale ko bitim réew bu fekkee dañuy commerce pour dem bitim réew di ñëw wala di dem di indi ay entreprise yu nekk bitim réew ñuy ñëw di remplacer Sénégalais yi commerce boobu baaxul commerce bi baax mooy bi nga xam ne ci biir réew mi la ndax même kiy defar taleeg kiy defar usine kiy defar yëpp ci commerce la nekk ndax day jënd matériel day wut ay employé da leen di fay dañ koy jaay seen service et tout ça fexe ba li nga xam ne nii bu desee ci réew mi rek loolu lépp day dox. mais sëriñ nag dinaa la interpeller ci benn affaire. ci commerce. maanaam mbiri bitig yi xam nga am na ay sénégalais yu jógoon naan Auchan dégage. Mm-hmm. Ah, mais sunu bitig yi man bari na ci boutique yooyu ñeme mu moo faa jënde dara di ko dugal sama biir kër. Mm-hmm. bitig bu ay mbóot ak jinax bokk. yéen sénégalais yi ñi ci ñi ñenn ci yéen bu ñu amee xaalis liñ ciy njëkk a def du investissement mais jënd kër la tabax ko di ko loué. yéen Auchan place bii mu am tey jii ba ubbi ay magasin yu propre nit ñi am confiance di fa jënd parce que set na mais bu Auchan fekkoon ngeen def ko du ñu fi dugg donc commerce bi bu fekkente ni mun leen koo assainir mu set wecc propre hygiénique mais sénégalais yi dañ leen non dafa am yoon xam nga ah, France waa boo jëlee même bi Auchan juddoo France boo jëlee cent ans en arrière ay boutique lañu amoon boo demee ba léegi mais setoon na waaw xaaral mën mhm. naa am sax setul tanewuñ ñu woon jamono boobu ñun jamono boobu am nañ Sonadis ku xam Sonadis xam na ni Sonadis seetaan li am solo mooy li ci des mooy dafa am loo xam ne dañ ko fay fekkoon ñu roy ko bul jàpp ne bitigu yii fi nekk naaru gànnaar ñoo ko fi indi ñun dañ leen ci remplace matawul ñaar fukki léegi nag Auchan ñëw na man gis naa sénégalais yu bari ñu ngi koy jéem a def EDK koy def ñun jéemoon nañ ci ci prix d'eau mais xëy na defuñ yu mag dañoo def yu ndaw am na ñeneen ak ñeneen soo dikkee fii ci kaw Kaolack am na ko fi def seen teranga moi je pense que sénégalais yi may nañ leen temps rek balaa mat fukki at Auchan mooy takki bagage am dem waaye taxaw ne Auchan du fi nekk man d'accorduma ci ndax Auchan du fi nekk mooy population bi nga xam ne nii bu Auchan tijjee wala seen teranga tijji wala éducat tijji ñoom ñoo fay dem ñooñu ngay xañ seen bëgg-bëgg mm-hmm. man je pense que sénégalais yi mm-hmm. du ñoo fi indi boutique gu quartier yi yaa ngi fàttaliku. Mm-hmm. dañoo remplace te soo xoolee tey sax daanaka yeneen i yeneen i nationaux ñoo ko yor sénégalais yi daanaka yoratuñ boutique gu quartier yi kon sénégalais yi wax dëgg yàlla mm-hmm. bu leen kenn wax dara mm-hmm. nañ xool lu baax li ñu def ñu ngi def lu baax tabax kër baax na defi usine baax na bu njëkk avenue Lamine Gueye boobu masaan jaar mënu soo faa fekk benn boutique bu sénégalais moom ay naar rekk a fa moom mhm. kon ñi ngi évoluer bu baax nañ jël loolu mhm. téye ko mhm. te bàyyi sénégalais yi ñuy wax naan jéemu leen dara jéemu buñ ñu jéemul woon dara sénégal tas étranger yi dara lañ fi deful dara man sama loxo ci kaw xam nga lan lañ fi def buñ ñëwee seen réew seen président ànd ak seen président am réew ñu dem seen président ubbil leen bunt ñu am luñ munta am lekk lañ fi am waaw te ñun bu ñu demee seen réew amuñ ko foofu mm. waaye liñ fiy def ñoom xaajuñ koo def ñun liñ fiy def ñoo leen ëpp ay emploi ñoo leen ëpp lu ñu investir réew mi ñoo ëpp social bu ñuy def ñoo leen ëpp nag xëy na nag gros chantier yi mm. ñu ci ëpp doole doole yi ñu ci ëpp nag dañoo ëpp buntu rek mm. waaye ñun ñi bu ñu joxoon ñoom te te yaakaar ne ñoom rek ñoo ko mën a defi dañ leen di jël embauché leen ñoo fay leen salaire ñu liggéeyal ñu dellu chinois yi noonu lañ def allemand yi noonu lañ def waaw mais am na aussi benn affaire parce que man mas naay def émission di ko ci di di di ko laaj pourquoi mënut a nekk xam nga Sénégal da ngay gis euh, ku mel ni yow ak ah. yeneen commerçant ak keneen ak keneen ah, tabarkaal la bari nañ ci réew mi ñoo xam ne yor nañ dara mais yéen comme ni ko tubaab yi defee xam nga tubaab yi consortium dafa bari mm-hmm. da ngay gis lu mat ñaar fukki entrepreneur kee yor na cinq milliards kii dix kii quinze kii vingt kii cent ñu boole ko def ko muy une grande société boo xam ni dina attan par exemple bu Sénégal day defar ay autoroute à péage de 400 ou 500 kilomètres ñu jox ko ces nationaux là mais yéen dafa mel ni indi kenn ku ne dafa beru yoonam rek. non euh, gis nga loolu. Mhm. théorie bu ñuy wax la mais ça n'existe pas gis nga. yéen am na ci yéen ñuy. non non non loolu boo ko defoon sax day indi problème xanaa xamoo nit. du booloo mooy indi ñun booloo nañ de parce que am nañu association mais soo doon defar autoroute. Mhm. bëgg koo boole fukki entreprise du dem. kenn koy yor xam nga fan la doole ji nekk. Mhm. mooy kii la jox marché bi. chinois yi fi ñëw da ngay yaakaar ne dañoo booloo mais booloowuñ dara andi wuñ fi seenu saak lañ fi indi marché bi ñu leen jox jox la marché bi cent milliards yëkkati 100 milliards jox la 200 milliards avance mais nga dem jënd embauché say nit affaire bi du ay affaire sëriñ bu dajeeg Babacar Ngom parce que ñun duñ nekk ci terrain bi suñ jëloon tey Babacar Ngom wala diw wala Babacar Baara ko ne ñu autoroute foog nga leen ba ba Nigéria. nañ ko jox ay moyens rek moom xam nga lan lay wuti. bu fekkee moom moo jóg nag dem ci tari bi di ko defar bëgg am bañ bañ employé kooku nga ne ko kii yeewul waaye moom day wuti ay ay compétence toog bureau ñu defar ko ko. affaire bi du ab ànd. affaire moom mooy nañ dimbale kenn ku ne domaine ba mu nekk. suñ fexee ne man oto laay jaay mbay gi oto lay jaay nañ ñu dimbale ñun favoriser ñu ba suñuy auto yokk. ñun mën nañoo ànd. bu ñuy jëndi jëndi bu ñuy jaay jaay. loolu danañ àndi mm-hmm. bu dee ñuy defar tali. Mm-hmm. nañ jox kii pàcc bi jox kii pàcc bi jox pàcc bi mu def. Mm-hmm. mais ay état bi. du question chinois yi defar wala turc yi dañu indi xaalis andi wuñ fi dara sama loxo ci kaw. andi wuñ fi dërëm ñaari yoon rek am benn yoon bi mooy réew turc ne Sénégal kaay ma lebal la cent milliards waaye sama réew nga koy jox. sama waa réew nga koy nga koy jox. dajaloo wuñ su fekkoon ay turc dañoo dajaloo ay société turc dañoo dajaloo indi cent milliards ne tey nañ ko defar kon ñu ne noonu la kon ñu ne sénégalais yi ah, dajaloo la mais demewul noonu dañuy lebal sénégal ni ko nag sama doomi réew waaw léegi nag ñun ñu bëgg sénégal am na léeg-léeg fonds yoo xam ne moom moo koy lebi te ña ko koy leb imposé wuñ ko dara bu ñëwee ba mu ko jox nañu ko jox ba mu ko jox chinois yi ba mu ko jox turquie yi mm-hmm. parce que xëy na ñooñu tànk mi naan ñii ñoo ëpp expérience mhm. ñooñu ci Sénégal la jàng expérience boo demee ci réew yañ nekk mhm. defaruñ fa dara mhm. ñàkk faa defar dara ñàkk faa am marché moo tax ñu ñëw Sénégal waaw sëriñ léegi ñu war a daaneel parce que li ci des bariwul mais xam nga sànq ñoo ngi waxtaan ma ne la euh, yéen da ngeen a war di dajale seen alal ni ma tontoo ndekete peut-être lu baree baree bari leerul woon ci sunuy sunu gis-gis leerul woon ci sunu xel parce que bu fekkee comme exemple bi ma jox euh, turc da lay lebal cent milliards ni la cent milliards yi nag mun naa la ko lebal mais entreprise sama réew moo koy defar nga ni yow bu doon yow a da nga ko naan cinquante pour cent ab sénégalais ay sénégalais laa koy jox cinquante pour cent turc mais boo nekkoon président bu la nee mënuma loolu da ngay da ngay bàyyi leb ba. non loolu ñoom lañ koy man gis nga ñoom ñoom ñëpp muy chinois yëpp. Mhm. ci seen réglementation. Mhm. ngi ci biir. léegi léeg ñun suñ waa réew ñoo wóoluwul doomu réew mi ndax waxuma la loolu sax mais li réew mi di gañe nga xam réew moo ko moom cent pour cent lu ko neex mu jox ko bu dee marché yu mag appel appel d'offre international la ñuy wax international fu ñu ko bindee rek day mel ni Sénégal bokku ci dama leen di wax ne leen xanaa Sénégal bokku ci international mais nag sëriñ léeg-léeg aussi nga jël benn liggéey jox ko entreprise sénégalaise jox ko cent million mu war ko jar du ca def sax vingt millions ñaata entreprise étrangère lañ jël jox leen liggéey ñu gën ko yàq ñu gën ko yàq wala ñu def ko loo xam ne sénégalais yi mën nañ ko def yaa ngi dégg ay carte carte yi ñuy wax carte d'identité yi mhm. ah mhm. cest xam nga affaire bi ñëpp la li ma la mën a assuré bu ñu defoon bu defoon texte mhm. da nga gis ne liñ jox étranger yi yàq ko te kenn leen tudd te kenn leen tudd moo gën a bari li sénégalais yi yàq te dañ leen di tudd waaw kon nag bëggul sa bopp nag kenn mun laa ah, kenn mun laa defal kon nag ñu daaneele ci Saloum am na bien sûr am na ay sénégalais yuñ ñu jox defuñ waaye c'est-à-dire léeg-léeg dama lay wax loo xam ne leer mhm. nañuy joxe marché bi la soo tànnee ka man nga jox ko mhm. du yàq parce que réputation ah, mais soo fekkee ku musta jaay koo bëgg mu yor dara nga fekk ku musta tabax nga ah. fekk musta dara nga jël ko jox ko mais mënu ko def mais ki nga xam ne nii moom daf cee nekk nga xam ne wóor na ko ne moom bu ko defaree mhm. bu baaxee bu baaxul. Mm. réputation am la du ko def. du ko def léeg nañ jàpp bu wax ñi defar ñi joxe ñoo ñoo def kii. yow yaa ngi nii yaa ngi tabax sa kër boo jëlee jox ko mun mënta defar mu yàq sa kër. waaw ah. tu es responsable. léegi ñu daaneel leen nag ci dëkk bii di Kaolack nga xam ni yaay président chambre de commerce bi Kaolack nekkoon dëkk yi gënoon a naat ci Sénégal amoon port amoon lépp. waaw sëriñ lu indi retardement boobu te ngeen nekk carrefour international. nga xam ne daanaka fu waay mën a jóge ci àdduna bi il faut mu transiter par Kaolack. waaw loolu li ko indi mooy du du du Kaolack rek Sénégal gépp Kaolack da cee gën a. weex donc daal non non mën na gën a cee weex li ah, sax da cee gën a weex donc ndax li mu nekk Carrefour. waaw nga fu kenn dul jaar. Mm-hmm. kër gi boo fexee ba xam ne nii fa la ñëpp di jaar couloir ba ñëpp di jaar muy taq fu mu romb ngi ne kër gee taq waaye boo demee ca ba fële. mu taq kenn du ko xool. Kaolack dafa nekk Carrefour. Mm-hmm. mooy li taxaw nit ñi di fi ñëw mhm. moo doon poor bi ak chemin de fer bi en plus dëkk bi ubbi ko xam nga Kaolack tey ñi ngi naan dafa salte mais Kaolack salte wul man dem naa ci yeneen dëkk ñoo gën a salte xam nga lu tax mhm. Kaolack ñoo ne dafa salte yeneen dëkk yi fa ñuy tuur seen mbalit xaw naa dugg ci biir ñun dafa ubbi ko yaa ngi entré Dakar yaa ngi entré Touba yaa ngi entré Tamba yaa ngi entré Banjul ñu dem nag ñun ci entrée yooyu dafa tuur mbalit mi nga xam ni booy dugg mbalit mee lay teeru booy génn mbalit mee lay kuy dugg waaye waaye fii ñu nekk yow gisoo fi mbalit ah, kon damaa yaakaar ne tamit loolu dañ ko war a traité xam nga maa ngi félicité président de la république ci cleaning day bi ci set setal waaye dañ encouragé gaaw ñu wut comment on traite les ordures ordures yi dañ ko war a traité Kaolack ba léegi li fi nekkoon mi ngi fi port bi buñ ko dragué dana nekk tey dragué wuñ ko sax mooy deuxième port Ziguinchor dragué nañ ko te mënut a nekk deuxième port ndax amul gannaaw Kaolack tey foir bii ñu fi def foir baa ngi nii gis nga ko plus de trois cent mille visiteurs boo bëggoon a def foire géejewaay tey mënoo ko am na waa géejewaay jóg ne dañuy def foire autant de foire de Kaolack parce que position Kaolack la benn foire rek a nekk Kaolack buy màgg muy foire de Dakar. mais beneen foire bu mag mënu fa taxaw. Mm-hmm. ay foire yu ndaw la na foire yu ndaw sax yu commencé woon. par yu rek war nañ ko teg ca suuf sax. waaw mais loolu foire yu ndaw la. mais foire bu mag bu mën a accueillir trente cinq pays. accueillir ay trois cent mille visiteurs plus de mille deux cent exposants. Mm-hmm. Kaolack lañ ko mën a def. mais port bi est évolution bi fu mu toll. port bi man li ma jaaxle man dama ci am jaaxle. Hmm. parce que état bi def na li mu war a def machine yaa ngi fi hmm. mais kenn deful dara. kon ñu ñu ñu war a defar liggéeyuñu fi mu. ah waaw mais ministère ministre bi moo war a jël décision. Hmm. parce que tamit ñun port bi ñun dañ koy gérer ñun ñi ngi def li ñu def biñ fi ñu ñëw 2010 ñaari bato daa fi ñëw par at tey fexe nañ ba cent 150 bato mi ngi fiy ñëw léegi bu ñu yokkee gën dragage bi ubbi port fu ñu lu mat li fi amoon dana fexe ay. non cest xam nga lu tax sa nit ñi bëgg port port yooyu yëpp pare. bateau yi di fi yem mooy circulation du dakaar dañu yaakaar ni Kaolack bu pare woon peut-être Ndakaaru coono yi. mais bien sûr li ñuy def Dakar di yokk jam ñaajo di yokk dàgg xol ba bon baax na. Mhm. mais li gënoon mooy développer régions yi parce que ñi dëkk dàgg xol ba koo ci laaj. dakaar la kii la jógee Kaolack Ziguinchor nangam ak nangam. Mhm. nañ fexe ba nga xam ne tey pôle pôle yi. Mhm. tey état dafa war a bàyyi sax pôlu dakaar yi. ñu dugg ci pôle yi nga xam ne moo nekk. Kaolack pôlu Touba Ziguinchor pour nit ñi dellu industrie yi dem fi mais loolu defar autoroute yi baax na je je félicite président de la République ci encouragement yi def autoroute yi mais autoroute yi li ko ëpp solo mooy voie maritime yi ak voie ferroviaire yi gis ngeen bi bi bi bi ferroviaire bi dox gén ngi neew ngi nii am na tali ba nga àgg mais taxul mu dund mais lu ko doon dundal train bi train bi marchand ambulant la nit da ciy dugg ku am doole da ciy dugg ku néew doole di ci dugg bagage da ciy dugg lépp daf ciy dugg mu ñëw jël yóbbu rafetal dëkk bi dëkk yi nga xam ne nii yëpp dafa amoon ay gosaas ay yooyu yëpp danaan dund hmm. je pense que gis naa la dernière fois mu convoqué ñu ci benn euh, benn kii benn euh, aménagement territorial il faut ku ñu jël programme mandat bi li ci des mooy train train train train na train bi ñëwaat. train bi ñëw train bi ñëw train c'est pas uniquement passager. déedéet train passager sax. Mhm. train dafa nekk train marchandise. Mhm. c'est-à-dire liy ñore ci vallée bi. Mhm. su fekkoon tey train bi am na. danañ fexe ba mu agsi kaw wax indi yëpp. ci ay accident yi sax day wàññi ko day wàññi ko waaw. ba pare aussi économie bi gën a dox ndax. gaar am na maire bu ma mas doon waxataanal mu dëkk gee ngi néew mi ngi ma naan doom man eh, sunu sunu dëkk presque économie bi yëpp. mi ngi reposé woon ci halte bi fa train bi di taxaw 30 minutes voire 40 minutes ñun ñëpp kii jaay nenam yu nu baxal jeexal kii jaay ay pitax yu mu rëbb jaay mu jeex ñëpp di am dara. mais ba train ba demee ci la non seulement dañu amatul économiquement dundatuñu mais dafa far rey dëkk. waaw mais même les pays les plus développés boo demee Europe. Mhm. fu fa am gaar rek da nga gis li koy wër. taxi yaa ngi taxaw mhm. boutique yaa ngi taxaw lépp a ngi fi bon. mais nag sëriñ ñun africain est-ce que nga jàpp ni teelu noo jël suñu indépendance yi parce que ñun lu lu fi tubaab bi bàyyi woon su muy dund. war nañ koo rey non non non non non teeluñ ah. jël dañ koo yéex a jël. ah man dañ koo yéex a jël xëy na gis lu nu jëloon yàq nañu ko. non non tubaab bi moo ñu formel lu ko yées. ok man kay je tubaab bi moo ñëw bi muy ñëw formel mu dugal ci xelu ñoo xam ne nii ñoo yées tubaab bi. ñu baal ma nag. waaw ndax tubaab bi daana exploité waaye daana defar dëkk bi. Mm-hmm. ordre amoon na fi nit ñi daanañ jàng nangam. dañu ñëw ñu former ay nit ba pare dugg seen biir dugg seen biir di leen manipule ni ñu manipuler wax naa ko euh, su fekkoon tey bi ñuy jël suñu indépendance dañuy boole jànkatu tubaab bi ak jànkatu daara yi ñu mixé. Mm-hmm. boole développement boobu kon tey dépassé nañ fii ndax kat kilifa diine yi ñoom yar nañ seen i nit ba tey seen baat bañ amoon am nañ ko mhm. bu ñu waxee ñëpp dégg mhm. bu ñu wootee ñëpp muy si leen seen dëkk yañ defar mhm. ña ngi ko taxaw di ko defar voilà loolu nag ca bañ ñiy jox indépendance la góom boobu rek moo màgg ba léegi moo wéragul génération bii ma gis nag mooy génération bii mujj judd te président de la république ko wax génération boo xam dañuy judd après indépendance mhm. je pense que ñoom mhm. ñi ngi lu bu baax pour loolu dañ mhm. waaye tubaab bi daf ñoo dugg eh, bari na biir daf ñoo dugg trop ba nga xam ne nii daf ñuy orienté guidé ñu te fekk ñi ngi nax suñu bopp effectivement waaye sëriñ yëg si nañu fi ñu war a tàggoo de waxtaan wi neex na waaye ñu jox la nga tàggoo rek ba beneen yoon waaw tàggu ñëpp rek di gërëm ñëpp di gërëm ñi nga xam ni ñooy ñoo lay toggal yëf yi. Mm-hmm. voilà <laughs> merci di la masawu tamit ci coono bi. Uh-huh. waaw xam naa ne depuis démb ba léegi. Uh-huh. yaa ngi may. <laughs> yaa ngi daw sama gannaaw pour ñu def <laughs> émission bi. merci. merci beaucoup kon nag turu ngol-ngol turu ngol-ngol yi mooy sama dëkku cosaan falaa laa juddoo. Ah, ngol-ngol laa dëkk. waaw ah, loolu xam nga loolu laay wax dama ne la mm-hmm. mag ñi. Mm-hmm. dañu am identité. Mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko daan wax njool màkk. Mm-hmm. njool Fouti. Mm-hmm. waaw al Fouti. al Fouti waaw kay. voilà eh, Cheikh Serigne Touba ñu ngi borom Touba. borom ak al ak Mbakke. ak Ibrahima Niass. moom bu daan signé da daan al Kaolack. al Kaolack al Kaolack yi. moo tax ku ñuy wooye. naan Serigne Boubou Kaolack. wala diw Ngol Ngol wala diw. Nangam yow Serigne kër Modou Khari. non xam nga kër Modou Khari <laughs> sama. cosaan la waaye nit ku ne fi ngay juddoo waaw dafa fort nañ ko def xam nga buñ toppee cosaan day sori <laughs> waaw man damay bëgg l'identité d'une personne mhm. mooy sa date de naissance sa lieu de naissance effectivement waaw man naa am sama cosaan njaabul mhm. njaabul la boo ko toppee day sori waaye dëgg-dëgg kaw <laughs> Kaolack fi nga juddoo fi ngay fi nga màggee kon nag mbokk yi gis ngeen euh, émission penci réew maa ngi noonu comme ni ñu leen ko diggee woon rek baax na aussi léeg-léeg dem ci benn dëkk waxtaan waa dëkk ba bu ko defee ñu gën a comprendre parce que euh, affaire bi du du dama jàpp ne rek fépp waa Sénégal yépp ñooy seetaan émission penc réew mi bëgg ko ba ca bitim réew kon laaj na léeg-léeg nuy def ay déplacement di fekki nit ñi ndax euh, fa ñu dëkk ca gox ya waxtaan fa ak ñoom looloo waraloon tey ñuy dalal euh, Serigne bu dinañ dalal yeneen Saloum saalum parce que bëgg nañ fi am ñeenti émission bu soobee yàlla yoo xamante ni dinañ ko yóbbu 2S ñu di leen ko tegal comme danoo jàpp am fu nu war a dem tournée ji émission démb kon ñu tàggu foofu rek incha allahu ba suba ñu dellu seeg yéen ci beneen invité fii ci région du du xam nga région bi nag mu ngi tuddoon Sine Saloum ñuy jàll nag balaa ñuy tëj euh, El Hadji Idrissa Gueye nekkoon président chambre de commerce bu kaw lax nekkoon aussi suma xaritu mag El Hadji Cheikh Tall Mbamba ñoom ñaar ñëpp. yal leen yàlla xareel aljana bi jaayi seydil wujjoot ndax ñoom ñaar kenn ku ci nekk tuddee nga sa doom sa moroom doom te loolu kóllëre la kon nag bokk yi ñoo ngi tàggoo fii rek di ñaanal alaaji sa géey nekkoon euh, président chambre de commerce bu Kaolack yàlla na suuf woyof ci kawam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amaanillah jërë ngeen jëf